te wax bii nag alxadimu moo ko wax ci téeréem booba ñuy wax nahjul xadaayil xaaj yi léegi nag ci biir loolu ma bëgg a leeral pas-pasu baat bi ak it li aju ci téere boobu lan moo tax seex bi taalif ko ak ñaka sàkk woon ci ñoom comme ni ma leen ko waxee ginnaaw bu murid di ñëwee waxoon ko ne ko dañoo bëgg nga defal ñu téere buy bu ñu bu tax ñu yaru daal léegi bu ni leen dinaa def benn téere boo xam ni dina dina leen jàngal ab yar waaye dinaa sukkandiku ci eh, naar bii di alxaaji léegi nag lenn ca nit ña di wax ne ah muslim nekk fii buxaari nekk fii anbal nekk fii muy dem sukkandiku ci naar bi daal lii daal lu doy waar la waaye mu ni Thiel ba nga xam ne mi ngi pare bindi téere bi ba mu ñëwee nag mi ngi doon tontu nag ñoo ñii doon wax loolu léegi nag mu wax ni kon dina ñëw kon fi ñu tolloon dina ñëw tey ngir tontu lenn ci murid yi di wax ni muslim a ngi fii anbal nekk fii saafi yu nekk fii fa nekk fii muy dem di sukkandiku ci naar boobu muy muy alxaaji mu leen di wax ni nag na ngeen xam ni nag dafa amoon nag benn téere boo xam ni alxaaji mii ngeen di wax daa boole woon mbooleem la muslim waxoon ak la buraxaar yi waxoon ak la anbal waxoon ak la saafi yi waxoon lépp mu def ko benn téere kon nag ba ma jógee nag di def foofu ba ma jëlee téere booba nag kon wax naa mbooleem la gaay waxoon moo tax mu ni jullu maa ëpp di la nga xam ni faaraqoo teqale woon nañ ko alquddima ña di way jiitu loolu lay wax foofu maanaam nee la la wàlli yo daal mooy mooy ñooña mu ni nag téere yépp si wax boobu ñoom muslim wax bépp daal mi ngi ci biir téere bi aw waaye nag ci biir loolu déedéet du ñu weddi ni waxi muslim nekku ca du ñu weddi ni waxi buxaari nekku ca du ñu weddi ni waxi anbal nekku ca waaye ci biir buntu yooyu ci bunti téere bi maanaam ci fu muy sukkandiku ci am bal wala muy sukkandiku ci saafiyu wala muy sukkandiku ci hanifa ci kilifa yooyu foofa fa muy waxe day waxeet ci beneen xeet ci beneen sens lay jël lu jëme ni lu jëm ci ay addis wala yooyu waaye nag du jël lu jëm ci wàll ki nga xamante ni si noonu lay tàggatee murid yi mu di ko fa dugal parce que bu fa dugalee waxu muslim si si wàllu ñoom ni ñu doxee day day safaanoo daal moo tax du jël njàngale mooma waaye nag foo xamante ni si muslim wax na fa mu fay dugal waxi muslim mu dugal fa ab wala mu ni mu wax ni Hanifa jële nañ ci kii voilà foofu fu fay sukkandiku rek foo dégg muy sukkandiku ci foofu rek dafay wax si wàllu sharia bi mais bu dee ci wàllu tarbiya bi si nit ki ni du ko def ci beneen côté lay jël waaw lay jël ci beneen côté boo xam ni eh, loola fa lay fa lay fa lay fa lay fa lay tàbbi di fa di fa sukkandiku daal voilà day tàbbi di fa sukkandiku noonu lay def comme fu ma bëgg a waxee comme fu mel ni mu ni su fekkente ni nit ki dafa wax aw safaan lu dul dëgg fekkee nit ki dafa wax aw safaan maanaam xaaral ma def benn audio ngir mu mën a leer léegi comme li ma bëgg a wax cheikh bi dafa wax ni comme bu nit waxee benn wax boo xam ni wérut maanaam wax boo xam ni du dëgg cheikh bi dafa tere ni bul ko weddi nee na bul ko wax waxoo dëgg mukk waaw nee na bul ko wax waxoo dëgg te it nee na bul ko wax juum nga waaw <laughs> dégg ngeen de dafa wax ni bu nit waxee lu dul dëgg seex bi dafa wax ni nee ne ne bu ko wax ni ko waxuloo dëgg bu ko wax juum nga ñaar yi bu ko bu ko ko wax waaw bu ko wax waxoo dëgg bu ko wax juum nga kon loo ko bëgg loo koy wax mu ni seex bi nee naa bu la leeree ni lii mu wax du dëgg danga naan ko ah waaw sëñ bi ah man de dama yaakaar ne woon sax nii la waaw man dama yaakaar ne woon daal nii la daal ko koy waxal comme mi ngi mel ni tey moom bi waxee ni eh, sahidallahu tabaraka wa taala أن كهاتب هاش الحروف laa yemootu abadan comme bi mu ko waxee nii maanaam mu ni yàlla seede na ni ki mbind mbind mii du koy faatu daal kon warumaa ñëw directement ni ko ni ni kilifa gi waxul dëgg warumaa waxit kilifa gi daa juum ñaari yëpp dama ko tere warumaa wax loolu lan laa war a wax ah damaa war a wax ne ah man de waaye sëñ bi ah, man de damaa yaakaar ne woon rek comme lii yàlla wax ci alxuraan ni kullu nafsin saa'iqatul mawti man de loolu laa jàppoon ni rek lool lool la man de damaa defoon rek noonu la bu ko noonu nga koy waxe waaye loolu wóorut parce que boo nee damaa defe ne woon rek loolu loolu wérul loolu loolu wax bu wér ndax boo nee damaa defe noonu mu ne la nag li nga defee du ni waaw nii ma ko waxee noonu la war a nekkee voilà loolu garaawaale la kon dafa tere nit ki wax dara lu dul dëgg nga leen li du dëgg nga ni ko bul ko wax waxuloo dëgg bul ko wax it dangaa juum waaw voilà kon daq na njuumte jàq daq na waxoo dëgg ñaar yëpp ki seex bi dàq na ko dàq na la ni la bul wax waxoo dëgg dàq le na ni la bul wax dangaa juum waaye nan nee na nan nga ko war a waxee damaa defe ne woon ah damaa defe ne woon ah man de damaa yaakaar woon nii la ah man damaa yaakaar woon moo damaa yaakaar nii la te it nee na da nga koy wax wax bu weef man de damaa yaakaar nii woon nii la waaw li ma waxoon sama mbokk yi fële rek nee naa woon ku ci jàng nahjul qadaa il haaji li ci seex bi wax ahlu sunna bu ko jàng nga jëf nga jëfe ko da ngay bàyyi daxwa wa yow mal xiyaam yow dootoo woote kenn ci daxwa waaw loolu moom dafa leer waxoon naa ko ay ahlu sunna yu mag nee naa leen woon li seex bi wax ci nahjul qadaa'il haaj yi bépp ahlu sunna bu ko jàng jëfe ko da ngay bàyyi daxwa forcément ndax ñun de ci côté bii ñuy daxwaa nii di woote di dajji loo xam ne nekkul nga ne ah nii la leeral ko ni cheikh bi daa juum ñoom ak njuum gi cheikh bi da ko dàq voilà moom daal nee na dangaa damaa defe ne woon nii ngay waxe loolu nag dum loolu daal dum njub ndax yàlla nag nee na wala talbisu xaqa bil baatili wa taktumu xaqa wa antumoo taalamoon dëgg-dëgg nga xam ne lii daal wax dëgg yàlla moo di dëgg nga di ko nëpp nëppal ah di di di kii ay caaxaan loolu baaxul waaw te leer xam nga ne lii ay tappale la nga di ko nëpp nëppal loolu la seex bi saxal fii loolu ak nëpp nëppal la waaw yàlla na foofu ni walaa talbisu xaqa bil baatili wa taqtumu xaqa wa antum moo comme ni ma leen ko waxee fàtt leen comme ni ma leen waxee njàngam bàyyi seex la nag kay ngeen waaye ngeen bëgg a ngeen comprendre li may bëgg a wax rek incha allah ndax loolu man nee naa leen du sama problème waaye liy wér mooy li may wax rek mooy nit ñi mën a xam ni lii may wax moom dafa leer waaw kon loolu la indi ci buntu boobu kon mu bëgg lay ay lay yoo xam ni nii la ko laye eh, ba pare ba ba taxul sukkandiku woon ci ñooñu donte nag alxaaji moom fa muy dugal waxi muslim ak buxaari foofu ci côté sariya ba lay waxee waaye nag ca poto dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu nit waxee loo xam ne wéru nga naa ko yi yooyu yëpp da ko dàq waaw it day digle ci téere bi di wax naan maanaam bul gëstu yëfi nit waaw bu ko gëstoog maandul ci ay mbiram ak yooyu nga xam ni kon seen tappale yooyu yëpp nga xam ni def nañ ko dugal ko ci diin yooyu yëpp day aye ku ko lëñtu téere bi téere ba da koy da koy dàq daal ma ngoog loolu nag garaawaale la